salaamaaleykum patriotes yi maa ngi leen di ziar naan leen genn euh, fait très attention gudduñ toll Macky Sall gis ngeen ay temps Souleymane Jules Diop yéen mosu déggatul leen ko woon sax déggatoo leen ko woon kenn xamu ko woon fan yi gis ngeen xam ne ñu ngi waaj a perte nguur gi commencé na génn di wër plateau yëpp di jouer ci xelu gaay yi Barthélémy Dias ma it keroog génn na toog naan Sonko du génn kaso xam na loolu bu yàgg parce que raison d'état la Barthélémy Dias c'est le plus grand imbécile il faut ngeen oser dire que un le plus grand connard baaxul Souleymane Jules Diop gën kaa yées fop parce que gars yi day mel ne sénégalais yi at yi danoo gaaw fàtte quoi ñenn ñi ñu bëri ñu ngi soog a dugg ci politique ñu bëri xamuñu woon mais il faut ñuy toog di leen rappeler histoire di leen rappeler li fi passé kan mooy kan ñi toog tey di wax di leen jéem a lëndëmal ñooy ñan mës naa leen wax kan mooy Souleymane Jules Diop ma ñëw waxaat leen kuy Souleymane Jules Diop Souleymane Jules Diop maa ngi dégg ñi naan ay Sonko du génn parce que <laughs> raison d'état maa ngi ñëw ci raison d'état Souleymane Jules Diop moo fi saaga woon Abdoul Aziz Sy junior xalif général Tidiane moo ko saaga woon saaga yu metti ba mu ba avant Macky Sall di falu parce que Macky Sall di fay moom naan ko dema saagal dema attaquel parce que ñoo Ablaye Wade lan àndal moo toogoon bitim réew di daggal saaga yu metti Abdoul Aziz Sy Junior waaw Serigne Cheikh Baara Falilou Mbàkke kooku nee na bis bi bi Souleymane Jules Diop attaqué sëñ Baara Mbàkke wax ko wax yu ñaaw attaqué Xelcom wax ko wax yu ñaaw Serigne Cheikh Baara Falilou Mbàkke moom moo ni Souleymane Jules Diop bi dañ ko réew hôpital xool bopp bi est baax na est-ce que ça ce que ku na parce que wax yi mu doon wax pour moom nit du ko wax kilifa diine du sañoo ko sax wax li may wax dem leen ngeen xoole ko ci histoire ci archive mi ngi ci internet beeg partout soriwul ñu naa la ñu waa parce que du ñu créer ay wax dem leen ci internet ngeen tàppe di ngeen gis lépp Souleymane Jules Diop boobu moo fi taxawal di saaga ku ne ba mu Macky Sall faloo woo ko fal ko ministre ba délégation Mouride ak Tidiane ya nekk bitim réew def benn pétition ni naka Macky Sall dàqaat parce que mérité wul poste bi parce que saaga ndey ay xalifa général moo tax ñu fal ko après yéen a fii ñëw bu ngeen toogee ci plateau yi naan waa Pastef bàyyi respecté leen kilifa diine yi jàppal bàyyi ak yooyu parce que Macky Sall ki doon saaga ba Macky Sall fal ko ça veut dire kon Macky Sall moo moom moo njëkk a saaga xalif généraux yi tey taxaw naan ay Touba Tiwaawan ak diine Macky Sall dafa gëm diine Souleymane Jules moo fi traité woon sëñ moodu Kara de escroc ñëpp di dégg histoire bee ngi fi xool leen inte moo ko fi traité woon de escroc loolu démb la nee na sëñ Modou Kara charlatan la Souleymane Jules Diop boobu temps mooy wër plateau yi de moo plateau corrompu yi may mun a dóor fay xaw ma corrompu yooyu bu ñuy def semblant posé leen question lan moo tax Souleymane Jules Diop sañul dem euh, jàkkaarloog sëñ Saliou Guèye seen TV wala mu dem penco ñu invité ko mu toog sañ na fa taxaw naan bàyyi leen saaga waruñu def léeg léegi lii journaliste yooyu kenn du leen cromp c'est des vrais hommes ay góor lañu ñooñu journaliste tu dois opposer à ton journaliste boo invité nit da ngay xool fan lay jaar nga xool foo koy opposé sañul dem plateau yooyu maa leen ko wax du toog ak ñooñu mukk bu toogee ñooñu génnal ko démbam teg ko Sénégal yëpp xam mooy kan xam nga fan lay dem ñoom seen plateau bopp yi nga xamante ne ñoom ñoo ko moom ñu koy may temps muy wax na ne day lëre sénégalais xam na ni léegi élection yi ngi jege mu ni xaaral ma génn kenn gis ko woon c'est le plus mauvais des sénégalais Souleymane Jules Diop boobu ak xonkaan na ngeen def attention ci moom bu baax. ñu ñëw ci Barthélémy Dias moom naan Sonko gars yi nee na du génn ndax raison d'état moom toujours moom la ñuy yónni bu ñu bëggee def dara moom la ñuy yónni raison d'état ok maanaam su maanaam Ousmane Sonko dafa ni sénégalais yi dañoo war a jël suñu souveraineté moomal suñu bopp gérer suñu dëkk sénégalais yépp tekk gis seen bopp ñu ni non comme comme loolu la bëgg indi daf ñuy yàqal léegi raison d'état ok maanaam ñi sàcc suñuy alal rapport IGF IGE nag rapport yooyu ñu sàcc suñuy milliards loolu du raison d'état sàcc d'état boobu loolu mooy vraie raison d'état sénégalais yi nekk ci entreprise yi nekk ci entreprise libanais yi chinois yi indien yi turquie sénégalais ya fan ne ñu leen di bëgg rey di di leen souffrir lu ne ñu koy daj lu ñu fayoo ko balaa weer bee dee mu jeex balaa sax quinze jours mu jeex ñu leen di teg teg ay heures de travail yu kenn xamul ñaata la dara méngowu ci ak ak loi pour man loolu mooy raison d'état raison d'état mooy ñii jël gaal yi mel na sabar bu tas mel ne Sénégal amul amul benn justice amul benn homme de tenue amul kenn kuy contrôler dara ku mu neex jël gaal dem. lool mooy raison d'état raison d'état mooy suñu mille milliards Covid yi yi ñu ni dañuy def enquête te mujjul fenn ngeen sàcc dugal seen poche loolu mooy raison d'état xam nga raison d'état moom mooy lan suñu homme de tenue yi jël bal fital dóor oto dàmbuj dóor nañ ci sept bal ana enquête ba <laughs> loolu mooy raison d'état raison d'état du ki du ñëw ni sénégalais yi suñuy bien ñun dañ ko war a gérer suñu bopp développer suñu bopp suñu dëkk moomal suñu bopp suñu dëkk def naa ni kooku kooku rek a jar a bàyyi ci dëkk ngeen ni bon kooku comme comme comme bu defee loolu ñun dootuñu sàcc tubaab bi dootuñu ci am étranger dootuñu am kon tëj leen ko kaso danger la sénégalais yi duñ leen ci bàyyi dem leen jëli ji seen i carte gars yi jot na ba pare pour ñoom dañ leen a ragal sénégalais yi dañoo ragal génn ci mbedd billaahi ragaluñu ko xaaral ba jour élection yi jot ba gars yi voté en masse xam ne Sonko moo war a gagné Pastef moo war a gagné ngeen naan noo du gagné da ngeen di jéem a su boobaa ngeen di xam ndax sénégalais yi da leen noot wala nootoo leen leen lii man maa leen ko waxaat tey bind leen ko teg. ay Souleymane Jules ak ay Barthélémy Dias ñooñu toog di joxe ay leçon Souleymane Jules Diop nga xamante ne kuy saaga tey di live bay génnee saaga saakat yi ngeen di génnee kooku mooy seen kooku mooy seen xalif moom moo ne ci kaw moom moo leen jàngal yoon bi nan ngeen di saaga ku dem bay attaqué xalif général aw seen tur jaar fu bon songu xel xom lu mu leen yàqul ci àdduna amul nekk Europe toog fa Macky Sall ne fii di ko financé moom Macky Sall kooku dina saaga xalif généraux yi saagaa saaga saaga ba Macky Sall la falu premier gouvernement mu ñëw fal ko comme ministre mais kon kay est-ce que jar na ngeen di dem gauche droite Macky Sall laa ko ngeen war ngeen ko xam xam nga lan mooy raison d'état bi gën a ngand mooy président bi nga xamante ni dan la laaj defal déclaration déclaration patrimoine nga ne am naa huit milliards foo ko jëlee nga ne Ablaye Wade dama ko may Ablaye Wade ni la da ngay fen kon Macky Sall boobu huit milliards am yooyu loolu mooy raison d'état banditisme d'état et sàcc d'état président buy sàcc kon ñeneen ñi nu ñuy def donc sàcc yooyu yëpp loolu du raison d'état du danger état ñu ne non non Sonko bi bëgg a développer suñu Sénégal mooy raison d'état seen wax boobu laa bëgg ngeen lem ko ba mu neex toogaat ci song ngeen Bassirou Diomaye Salafis jàllul. léegi raison d'état du jàll léegi bu ngeen jugee ci raison d'état ñëw leen naan Pastef ku bokk Pastef boobu aussi du jàll léegi yéen a ngi wutaat yeneen wër ngeen plateau yi bëgg naa sénégalais yi xamul histoire chaque jour dinañ génne histoire di ko tegal sénégalais ñu xam yenee ñan yéen a gën a yées lu yàlla sàq bu ngeen ñëwee bëgg jiñ sénégalais yi man j'ai pitié de sénégalais qui travaillent avec les les libanais bu ma doon lim sax entreprise ak sociétés yi libanais yi yor du jeex liñ leen di fay jëruñu leen dara buñ ci jëlee transport bëgg ci lekk bëgg ci jox seen waajur ñii buñ ci fayee location mais on les paye des miettes dara fayuñu leen ko ñun Sénégal ñu ne wii ok ça loolu ay ay raison d'état dëgg code du travail war a lijjant yooyu ku def stage trois mois nga signal ko CDI te dafa am salaire de base boo xamante ni kenn du ko wàcc société yëpp di fay taxe Sénégal ba mu daj loolu mooy raison d'état émirats yi ku bëgg ñëwal ñu kenn mi ñëppay fay taxe nii walla ci ne neex naqari parce que tu gagnes de l'argent ici di nga gagné yóbbu de mais di nga fi bàyyi de bu baax sax ba pare employé yi <laughs> di nga leen embauché force parce que boo embauché wul sa dara dox ñun Sénégal ñuy naan non comme cherché nga emploi bul fay taxe ay waay ak yomb jugee naan ñu ay Souleymane Jules Diop Barthélémy mu jóge fee naan question d'état Sonko gars yi concentré wu leen jëli ji leen seen carte wax naa leen ko waxaat leen ko combat bii nii nii dinañ ko gañe te li des bëreetul te xam nañ ko ñoom ñëpp tubaab bi bu dee ñoo ngemb Macky Sall nanu génn voté en mance bu nekkee nag añam bu ba Farba Ngom àll yooyu la ñu yaakaar defar ay bureau yoo xam ne kenn xamul fi bureau yu jógee bu nee cent cent mille votants fa ne ñu dem ni trois cent mille votants fa ne fichier bi tôt ou tard yéen teg ci loxo gars yi fu nekk ci Sénégal dana nekk ci bureau yëpp toog bi moom du jàll ok sama gars yi maa ngi leen di bëgg bu baax a baax a baax wasalaam